auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te jiiteel suñu nuyoo kilifa gu tedd gi ñu sëñ Abdul Samad di ko ñaanal fanu gudd mu gudd gudd gudd ànd ak wér gi yaram ànd ak jàmm mi tay ëllëg te muy suñ mbokki taalibe yëpp ñu fas yéene jàllale suñu bind bi di Misbahou Sari ci kàttanu yàlla bisimilah ñu war a tàmbalee baabu aqsaami miyaahi mu ne baabu li bunt la aqsaamul miyaahi xaaju ndox yi wamaa yar fon ak loo xam ne def na ci yëkkati alxarisu toj ma bunt bi day jàngale lu aje ci ndox muñ mën a jëfandikoo ba jaamu ci yàlla buñ ñee ndox muñ mën a jëfandikoo ba jaamu ci yàlla sa xel daj jàpp ak sangu jan sangu janaba ak dindi sobe so la taq ak xeeti yooyu mu ne wu kullu maa in mépp ndox naasilin muy aji wàcce mina samaay tukkee ci asamaan aw naabin wala muy aji bale min ardin tukkee ci suuf aw jaarin wala muy aji daw nama dolliku na baaxin di aji des xalaa aw saafi ci meloom ya aw xuyyira wala soppeef ko min ardi ci suuf sa aw ma wala la nga xam ne xad jaraa daw na ar ci moom aw mukk si wala ak saxam fa mut loxun lu ñu boyal la taxurun ñu aji laab yee si xu dana wér min ci moom as suxru as surbu naan nga wattat xiiru ak laab ga nee ndox mu laab day limal na la ne bi njëkk mooy mépp ndox moo xam ne dafa bàyyi koo ci asamaan rek moo xam danga koo taataan fenn wala nga dékk bool wala dara ndox mooma mën na lépp ci jaamu yàlla kon ndox mu bàyyi ko ci asamaan moom nga taaraan ko noonu direct mën nga cee jàpp mën nga ce sangu janaba mën nga cee dindi sobe waaw li feeg nag dara raxu ko ginnaaw ba nga xam ne si ne wàcc na ci asamaan wala sax ndox moo xam ne dafa balle ci suuf nga fekk ko noonu muy balle wala nga takk ko fa muy balle wala ndox moo xam ne day daw yii ndox yépp dañ koy jàppe foo ko fekk rek day ndox mu laab mu bàyyi ko ci seman wala ndox mu balle ci suuf wala ndox moo xam ne day daw boo xam ne si dafa sax ca melo melowa nga xam ne moom la ko yàlla sàkk wala sax mu soppiku la soppiku mu bàyyi ko ca suuf wala coppi ga ma nga cosaanoo ca daw ga mi daw walla béréb ba waaw bu fekkee ne béréb bi ndox mi ne béréb boobu moo ami garab ba garab yooyu jox ndox mi caf ka wala béréb boobu mooy ban bu ñuul wala mu mel neen ba tax mbel ndox mi jël couleur booba kon tamit ndox mooma day mën jaamu yàlla lépp day mën a jàpp day mën a sangal janaba dana mën a dindi sobe wala ndox moo xam ne day daw di romb moo xam la mi romb ay xoor la wala xorom wala ay weñ ba tax yooyu jox ko couleur ba soppi couleuram wala meloom wala cafkaam du tee itam laab na wala bërëb bam ne dafa yàgg ba tax boo ko gisee doo ko xembeem mi ne jeexiti déeg wala yooyu yooyu yëpp day mën a jaamu yàlla kon ndox yooyu yëpp day mën a jàpp loo ci xam ne yaa ko sàkk teg ko ne sàggan ba dara dem ca soppi ko moo xam la ko soppi lu laab la wala la ko soppi laabut bu ci mën a doon rek boobaa ndox moomu duuru ko mën a jàppe man wa in yëkkun ndem dafa nekk mu xayiran di aj soppi ko bi taaxirin ci laab li lu ab yan fakku dana xobbi koo mooy dana bàyyi koo rek xan xu wilis ko xaaliban ci li gën a not kas sukkar mel ni suukar fa taaxirin lu laab la mustaxmalun lu ñuy jëfandikoo la fil xaadaati ci xaada min tabkin ci togg aw àjjin wala mooñit xalal xibaada lu dul jaamu yàlla nee fekkee li ko soppi lu laab la hmm. lu mel ne suukar moo dem ci ndox mi suukar laab na hmm. wala diw wala mooñit wala café wala bisaab wala ataaya xeet yooyu yëpp xam dañ koy jëfandikoo ci aada boo demoon ci ndox ndox mooma dañ naan laab na ci aada waaye laabut xibaada waaw kon ndox lu laab bu ko soppee lu mel ne yooyu ñu lim boobaa mën nga koo fóote mbubb moo xam ne am sobe wala yëre yoo xam ne am sobe mën koo sangoo sangu toilette waaye nag mënoo koo sangoo sandum janaba te it mënoo see jàpp wala nga ci raxas sobe bi la ndox bu fekkee ni si dañ koo jaxase dara moom sotti ko dala ko sotti sobe la moo xam fet nga la wala fet ga wala nelaw la kon àtte ba àtte ndox mu sobe lay doon li ko ndox moo xam ne deret moo ko xonq deret ku ne xam ne si la wala leneen loo xam ne suñu moo ci dem ba sotti ci ñetti meloom ndox mooma luñ ko mën a jëfandikoo ci xaada luñ ko mën a jëfandikoo ci ibaada mën nga koo roosee nag say garab wala nga ubbi ko sa jur wala nga tuuri ko waaye doo ko mën a sangoo doo ko mën a fóoti togg ko di ko lekk nag bu xaale wu kon lépp loo xam ne la ko soppi laabut boobaa ndox moomu moom du man dara waaw tuur rek wala roosee wala nga ubbi sa jur kilifu ma ci la nga xam ne ci ndox maa nga xam ne ustuxu la jëfandikoo ko fi rafet xarasin yëpp fi am kat kama daf ñu ndox kama inna xale yi ñu ak ñoom lam xale yu sos sottuñ ko alxabas xaj na nga gis rek moo la xamal tamit waaye ñu ko gisul woon loo xam ne dem na ci xam ne waaye surtout dara ndax loolu ne mën si koo jëfandikoo waaye nag dañ ne boo amee ñeneen boo si biir ko borom xam-xam yi wóote nañ ci loolu kon xadas lii la takk waaw moo xam mën yi yoo la takk wala am cënguwaay wala ay dem àll nga xam ne man nga dem mi ngi nii mooy xabas mooy sobe xadas nag mooy am toj nga xam ne nit ki mën naa set lool taara lool sol lu rafet xeeñ du neex fekk ne laabut waaw mu ne baabu axyaani taahiri lii mooy buntu jëmm yu laab ya wan najisatu ak sobe wamaa yi juusu ak la nga xam ne dana dagan mina taxliit ci xeeti takkaayal takkaay bunt bii day jàngale lu aje ci xeeti jëmm yi jëmm yi nga xam ne laab nañ ak jëmm yi nga xam ne laabut ak li dagan ci xeetu takkaay mu ne wa kullu xayyin lépp luy dund taahirun aji laab la wayal xaqu te dana ko yéegal loxaabuhu loram wax mu xaatuhu ñandaxit wa ñandaxit wa xaraquhu ak ñaqam wa safraauhu xayaliitam wax balxamuhu xaaxnikoom wax dumuuhu rangooñam ya nee na lépp luy dund lu laab la moo xam lu mën a doon moo xam nit la moo xam bàyyurma la moo xam ndañ ment la moo xam njanaaw la comme que mu ngi dund rek lu laab la donte xaj la wala mbaam xuux lu mu ci mën a doon rekk jamono yi muy dund woon dañ koy jàppe lu laab te muy lu wér tax te jëmmam jën laab ga day topp lay génn ca moom muy yii mu lim muy lan ndox mi génn ci gémmiñ moo xam yuut la wala lor loolu lu laab la boo jàppoon boo war a julli mbaam yuut la walla mbaam xuux walla xaj wala lu mën a doon duñ ne la ne demal nga raxas ko soo ko julli naka noonu ñandaxit ak ñandaxit lu mën a doon ak ñaq ñaq lu mën a doon wala mooy ndox mu soon moo xam day génne ci biir bàyyi ko ci mbaq ak xaaxandikoo tiflit ak rangooñ yi yëpp laab na ak ci luñ mën a génne ki ci mbindeef yàlla yi boo xam ne yaaka riisu mu fomp la ñaq wa wala moom mën a romb riisu la fomp la ñaq wa wala ay ñandaxim laal la bu fekkoon nga julli doo ko dagg te duñ la da ngay baabu itam mooy yëpp lim mu ne maraaratul mubaahi wextanu lu ñu daganal ak lekkam aw rajihahu wala nefareem inik tasa ndem jëfandikoo na ndem dina jëfandikoo mooy añ rek bi taaxirin ci laab wala banu sooma wala banu soow min aadama yin tukkee ci doomu aadama fii xayaatin ci jamonoy dund tuuxan def na wóolu ak laab na ko noonu wextan moom itam lu dagal la xam ne boo feesee gàtt wala lu mën a doon danga fekk wextan wa wextan woowu duñ ne dafa sobe wala nefara nefara nag bu fekkee nefaraw loo xam ne siini ni dafa araama lekk kooku aw nefaraam ak mu sowam yépp sobe lay doon waaw kon lépp loo xam ne siine araam naa lekk rek kooku nefaraam sobe lay doon bu la taqee danga koy dindi soo ko julli am sawam sobe doon bu la taqee koy dindi soo ko julli lépp loo xam ne siine ne lu dagan la moom itam am soowam ak i nefaraam akum sawam lépp duñ ko jàpp sobe am soow mënees na koo naan ay nefaraam akum soowam tamit du doon sobe mu mel ne xa gàtt yeeg nag yeeg kilim yi yooyu seenu sanguwaay ak seeni nefara du sobe bu la taxoon mën koo julliwaale mu ne nag loo xam ne si ni nag day jëfandikoo sobe loolu moom ay nefaraam akum soowam sobe lay doon lu mel ne ganaar ku ne xam ne ne dagan na laab na waaye nag ay nefaraam mënu ko julliwaale ndax moom day faral di dundi sobe na ko noonu kanaar ak yooyu miine la ñeen dundi sobe waaye ganaar yi nga xam ne dañuy tëj di leen xont nga xam ne génnuñ fenn yooyu mu wax nañ ne seeni nefara du sobe wala ak soom doomu aadama moom itam lu dagal la ci jamono yi mi dunde mu ne wasaa'irul albaani mbooleem soow yi xeeti soow yi kal dafa mel ne yàpp yi rek fil kurhi ca sib ga wa taxliili ak dagan ga wa taxriimi ak xaraamal ga nee na mbooleem xeeti soow yi soow mu ne day topp ca lam jóge soow mu ne day topp ca boroom lam juge waaw bu fekkee ne si soow mi dafa bàyyi koo ci lu dagan soow ma dagan na bu fekkee soow mi dafa bàyyi koo ci luñ sib soow ma sib nañ ko bu fekkee soow ma dafa jóge ci luñ xaraamal soow ma xaram naa naan ko noonu seeni nefara tamit noonu lay toppe lépp loo xam ne dagan na ay nefaraam ako soowam du sobe lépp loo xam ne sib nañ ko ay nefaraam akum sawam dañ koy sib lépp loo xam dafa araam ay nefaraam akum sawam day day araam da doon sobe loo ko mën a julliwaale mu ne woo bëy du nen kulli xayin lépp luy dund illal masira ndaree bu nëbb wal xay u waccu an xaalil xisaa yi ci melaw jëfandikoo mooy añ rek maa xuyira li ci soppikuut nee na nen lu dagan la nenu lépp loo xam ne day dund luy dund rek nenam laab na waaw mu ne nag ba des nen boo xam ne dafa nëb kon nen bu nëb moom moom sobe lañ koy jàppe naka noonu wocc wocc moo xamante ni soppikuut boo doon wocc wocc ba noppi takk nga ci waccu mi waaye wocc mi ni nga ko lekkee woon noonu ko wacci waat noonu ko wacci waate nga xam ne dara soppikoo ci boobaa bu la itam du sobe waaye fekkee ne bi nga ko waccoo soppiku na kenn xàmmeetut lii ceeb la woon wala wala wala leneen xamuñ lu mu boobaa soppiku na boobaa bu la takkee demal nga raxas ko soo ko julli am des waaw bu dee nen nag ba tey nenu jaan laab na waaye moom dañuy tere ku ko jëfandikoo ndax loraange gi ci aje kon bépp nen boo xam ne jëfandikoo ko mën naa indi lor rek boobaa dañuy tere ku ko jëfandikoo kon boo yoroon sa nen yu bari di ko baxal dañoo bëgg nga bëril ndox ma lool ndox ma daal mu néew ndax bu fekkoon ne am na nen boo xam ne yàqu na soppiku na bu fekkee ne dafa soppi ndox mépp boobaa dangay ngay tuur neen yëpp perte waaw moo tax ñu bëgg boo koy togg nga bëril ndox ma nga xam ne bu benn nen bu yàqoon du mën a soppi ndox ma bu ko defee nga seppi nen booba dong sànni mu ne miskun gët kasaa naka noonu fa ëratuhu deram ba fa taxir nanga ko laabal te lu laab la sumal jamaadaatu topp jamaadaat ya àllat yi nga xam ne lam tuskari soos du màndile nee na ñu wax gët muy parfum miski bi ñu xam loolu lu dagan la moom ni cosaanam mooy deret ndax kéwél kéwél miñ xam day am ab giir ca kaw giir boobu saa yu demee ba mat day dem ci garab rekk riisu ca bu ko ca riisoo mu wadd ci moom moom nag ci lañuy defaree defare gët kon giir boobu dera jëm ëmb dagan na der ba ko ëmb tamit dagan na laab na parfum yañ cey defar nag moo xam miski walla wala bu mën a doon parfum yooya laab na doonte cosaanam deret la te deret àtteem lu ci bari mooy laabut kon buñ ko ci liggéey mën nga cee laal sa yaram laal sa yére laal ci béréb bi ngay jullee mu ne topp jamaadaat yi jamaadaat mooy loo xam ne si ni amut ruu maanaam bàyyi wut ci li am ruu yooyu lu laab lañ bu fekkee ne du màndil bu fekkee ne si ne du màndil daal lu laab la kon lépp loo xam ne si ni bàyyi koo wut ci li am ruu nga xam ne dañ koy tudde jamaadaat boobaa mi ne doj xeet yooyu yëpp jamaadaat lañ boobaa bu fekkee ne doon loo xam ne day màndil ñu ci liggéey lu mel ne sàngara wala xeeti màndil gu mën a doon dañ koy jàppe lu dagan dañ ko jàppe loo xam ne seeni sobe la mu ni damun deret bilaa sa fin ci dul aji fuusu kasaa naka noon aji saa uma xaaji ya nga xam ne sukk ya rendeef na leen walaw bil kurhi doonte ak sib la laamaa xorima waxuma ya nga xam ne xaraamale nañ leen deret joo xam ne si ni lépp loo xameen si ni dafa am deret joo xam ne day fuus di caar-cari yooyu deret jooju sobe lay doon buñ ko rendee yooyu nag lu yaatu la li nga xam ne boo ko rendee mu am deret yuy car-cari wala boo jëloon dara jam ko ko wala nga xuri ko dara deret di commencé car-cari yooyu si ni deret sobe lay doon doonte sax lu ñu sib la waxuñ tamit maanaam loo xam si ne dañ koo xaraamal <clears throat> yooyu mu dafa yaatu xarak yi ñi reen yi yëpp di ko jëfandikoo ak njanaaw yooyu yëpp bu ci ne da am deret joo xam ne saa yu la rendi rek day car-cari deret joojay car-cari nag lu ñu sobeel la buñ ko rendee waaye fekkee rendi wuñ ko moom moom midd la bu fekkee luñ siba tamit naka noonu yiñ sibi mooy ndaj ment yi yi amee ay sel yooyu siir ak muus ak siiroog ak rabi àll yi fàdde yooyu yëpp lu ñu sib la bu ñu rend itam mën nañ leen a jëfandikoo waaye dara ja jooju car-cari sobe lay doon waaye nag manis naa jëfandikoo ndawal ga waaye nag sib nañ ko wala der ba wala lu mën a doon manis na koo jëfandikoo ginnaaw rendi ga waaye fekkee rendi wuñ ko nag moom moo xam bu dagan bala moo xam buñ sib ba midd la jëfandu dëgganut ñu jëfandikoo ñu koy jëfandikoo ci lekk wala mën a wamitatul baxari mbiddum géej mbiddum géej moom itam dañ koo jàppe lu dagan lépp loo xam ne si rek day dund ci géej mbiddam lu dagan la moo xam melawum mel moo xam dafa génne géej ga sax na ci jéer ji ba yàgg yàgg na ci jéer ji lool waaye moom rabu géej la ci géej lay dunde fa lay juddoo itam teewut tamit rabu géej rek lay doon mu génnee ba yàgg ci jéere ji bu fa dee tamit dañ ne ko jàppe sobe dañ koy jàppe lu laab wa maa laa dama ak loo xam ne déedéet rek lëfu di ko ñeel ak lépp loo xam ne si ne amul deret yoo xam ne si day car-cari loolu tamit laab na kon loo xam ne amul deret ji car car yi moom itam lu yaat lu yaat la mu ne sax lu mel ni sax ak mbuut ak gunóor xeet yooyu yépp ko ci rayoon doo gis deret joo xam ne day tasaaroo yooyu siinu medd lu laab la waaye yee nga xam ne si ne dañoo am deret yu car car yi yooyu tamit yu yaatu la deret jooju car car nag moom sobe lay doon mu ne laa wasaqu lu jaagee ne unk wa suxmatun ak jaan wa suxliyatun ak lesaar unk itam ak jaan dafa jubloo wax ne bokkut ak yee nga xam ne si ne amul deret ñuy car-cari ak lañuy wax lesaar ndax wax nañ ne ay égypte yooyu la gën a bari ene moom mii niñ ko fii wa saq bur yaasi ak càmmu tali càmbutali ay donqam wa suufin wa suufun ak karawu gàtt ñu koy wax leen ay karawu gàtt la ba tey rek woo wabar ak wabar muy karawu lëg ak giléem in justa ndem xoofeef na ko min xayin mu bàyyi ko ci liy dund waa mayitin ak li dee wa ak karaw bu ñuy karaw nag karawu nit ak karaw fasak yooyu yëpp day dugg bu ñu nee wabar dañ ci namm karaw lëg ak gileem suuf ñu ci namm leen te ñu ci muy karaw gàtt ak loo xam ne si dafa am ay dunq yu yaatu la dunq yu ndaw ya nga xam ne siini boo ko téye woon mën na laa topp te du ko yëg dunq yooyu tam bu doon tamit du sobe waaye donc ya nga xam ne boo ko doon dindi dana sab dana ciip ciipi ndax dana ko yëg ak bu métit donc yooyu moom bu doon sobe lay doon waaw kon mel ni ganaar wala kanaara yu mën a doon rek dunk yu ndaw ya nga xam ne ñooy sax ci dunk yu mag ya nga xam ne boo ko raayoon sax mu dañ wala mu xëccoon ndànk mu topp la te du ko yëg wala du metti donc yooya mu muy doon tamit wax nañ ne du sobe ak karaw gàtt karaw yaa nga xam ne si ni mën nga koo xuuf jël si siso dagg ca te du ko yëg ci jamono yi muy dund boobaa itam so laab na ak bu dee yëpp laab na kon yëpp seeni karaw ak seeni dunq ya nga xam ne si mënees na koo dindi te boroom du ci yëg wala du ci yëg benn metit moo xam karaw lëgg la moo xam gileem gi la moo xam gàtt ba la moo xam moo xam ganaar ga la wala kanaara wala xeet yooyu yu mën a doon yooyu karaw googu jamono ya muy dund ak jamono yam dee ñoo yam képp du sobe waaye loo xam ne boo koy dindi boroom dana ko yëg sab ca kooku bu dee miid lay doon bu fekkee da nga leen a rendi nag moom karaw ga ak der ba mën na lépp bu fekkee ne si ne ca der ba nga dindi moom sobe lay doon mu méddee ndax der moom saa yoo ko daggee borom yëg ko dana metti lool kon boo daggoon ca der moom sobe lay doon mu ne wax xamratin wax xamratun ak sàngara in xullilat ndem ndem njawaleef nañ ko aw xujarat wala dojaleef ko mooy wowal ko wasaru mbay ma in yasqa ndem rooseef na ko bi naj sin ci sobe ba nabatat mu meññ wala mu ñor nee na sàngara moom itam sobe la waaye fekkee ne si dañ koo ruyal ba mu wuriyee wuriyee wala ñu bàyyi ko noonu ba mu wow koŋ wow na doj nee nañ boobaa laab na duudut sobe waaye fekkee nag ba mu woowee buñ ko ruyalaatee mu mën a màndil boobaa itam sobe la waaye fekkee bañ ko ruyalee bañ ko woowalee buñ ko ruyalaatee du mën a màndil du sobe wuur yi itam ba soppi ko bineegar laab na du sobe mbay moo xam si dañ koo roosee sobe bam ñor mbay moom itam lu dagal la manis na koo jëfandikoo moo xam mbay ma lu mu mën a doon moo xam ay garab la moo xam boroomi xob la moo xam lu ñuy gas la mu ne ay ñambeeg pataas ak xeetu yooyu yëpp bu ñu ko roosee ak lu mën a doon rek bu ñoree dagan nañu jëfandikoo ko léegi nag boroom xam-xam yi dañoo wutee ci sobe su tooy ak sobe su wow maanaam luy ruy ak loo xam ne si dafay woy dafa woy wow bu fekkee sàngara mi nga xam ne day ruy moom def day ndoxe yooyu dagan na dëppoo dañ ci ne sobe la mënoo koo juliwaale waaye fekkee lu mel ne dorog wala yàmba foofu la wuutee am am ñu ne ah, na jëfandikoo ko waaye jëmm moom duñ ne sobe soo xam si ni bu laalee wala mu newoon ci béréb bi ngay jullee wala nga defoon ko sa poos loolu ñu ne baamu wala taq na la da koy raxasi fii maytatil insaani middum nit middum doomi aadama xulfun ak wuute xassasu jaglee lekk nañ ko ferremaadi ci doom ba wadduxaani ak saxaar sa raqasu woyafaleef nañ ko hmm. nee na mbindum doomu aadama nee na ak wuutee da cee am ba xam doomu aadama bu dee rek sobe la loolu wuutee da cee am doom boo xamante si cosaanam wala soxaan saxaar soo xam ne la koy saxaral ak wala taal boo xam ne la ko la ko jafal ba mu tàkk ca suufam sobe la dañ ne moom itam sobe la la nga cay lakk itam mel na nga cay lakk ndawal wala lu mën a doon boobaa dagan na nga lekk ko ci woyafal waaye fekkee jëmmi sobe sa ca suuf dajaa taq ba ràññi ko ca dañ ne mën koo fomp rek te jëfandikoo ko waaye am na ñoo xam dañ ne daal loolu daal sobe lay doon dëgërut ñu ko jëfandikoo kon taal boo xam ne la ko jafal ak saxaar si lépp sobe la loo ca lakk di ko mën a jëfandikoo am na ñoo xam ne loolu lañ wax mu ne wa arjahul aqwaali li gën a lëng ci waxi bi taxaarati ci laab ga fii maytati insaani ci middum doomu aadama xattal kufra ba tey yëfër nee na nag doomu aadama yi bu faatoo ñi ne sobe lañ loolu ak wuute da ci am waaye li gën a lënk ci waxi mooy daal doomu aadama ba muy dund ak muy faatoo lépp lu laab la doonte ab yéefar la kon yéefar sax bu faatoo du tax ñu jàpp ne sobe la waaw daal ñoo xam ne yenent yi donc buñ faatoo ñoom ñoo ñuuru sobe yenent bu faatoo moom laab na loolu muttafax la waaye ñeneen doomu aadama yi nag ku ci xas ba dee foofu la wutee am ba xam laab na wala laabut wax ji gën sax nag mooy laab na naka suñ boroom suturaale woon ci jamono dund noonu la ko suturaale ci bim faatoo waaw ndax dañ ne jigéen sax fekkoon ne dafa boot doomam di julli doom ja bu jullee ba sëlmal du tax ñu ne ko baamoon ndax sobe si sa kaw wama waman fasala loo xam ne facc na minal xay yi bàyyi ci liy dund awil mayiti wala du dee ka maytatil xay yi naka middum aji dund luy dund alli ci xam ne asal am na minu ca moom kon lépp loo xam ne dafa bàyyi koo ci luy dund walla lu dee loola am na ci yoo xam ne si ni sobe lay doon su mel ne ganaar boo ko bëggee rey tëye ko noonu di ko xëcc muy bëf muy diiru far tànk ba topp la kon de tànk booba bàyyi koo ci moom sobe lay doon waaye nag mën nga koo rendi lekk ko bu fekkoon ne nag bu soxor nga xam ni kenn mënu koo jege ba di ko loj wala rendi nga dóor ko bal ci tànk walla fett ko ci tànk tànk ba dali fee faf tàqale ko gémb ja boobaa jëmmi tànk boobu moom sobe lay doon waaye nag jëmmi nag moom mën nga koo rendi te jëfandikoo ko dañu daal li fiig lóoroo ko ci pàddu nga xam ne rey mu dee rëyin waaye fekkee danga koo gaañ ci cër rek ba cër booba dagg tàqale ko jëmm ja moo xam tànku kanam bala wala tànku ginnaaw bala boobaa jëmmi loolu tàqale ko moom sobe la naka noonu <clears throat> waaw ganaar goo xam ne si ni dafa midd am nen génn ci moom ginnaaw ba mu middee boobaa sobe lay doon mooy nen ba waaye fekkee dañ koo rendi ba noppi nen bi génn moom booba itam du doon sobe